Cheikh baara Bara Dolly yëkkati na ay kàddu jaar daanaka fa ko capitaine jaaroon li jaaxal ñu baree bari nag mooy Cheikh Abdou Bara euh, nekkoon na fi garde fou gars yi ci semaine yi ñu génn ba gis ni itamit ay nit lañ yoo xam ne ñu bëgg sëñ Touba lañ ba mu leen di contrôle dafa gis ni ñuy kat xamul woon ci ñoom dara waaye bi mu leen gisee ñu dugg Touba te Touba la am euh, mu ngi leen di jàppale ci li ñu nekk démb nag am na ay kàddu yu mu yëkkati yoo xam ni dañ koy déglu dellu siwaat jar na ko wala yàkkamti te tas gi ñu tas ensemble Diomaye Faye du si gagné mais Sonko moo si gagné amul lan lu muy dogal Ousmane mooy dogal dafa am Bassirou Diomaye le président de la République am Ousmane Sonko le premier ministre super premier ministre ji jël ay décisions yoo xamante ni obligation président la de si tënk parce que moom moo proposé président la pour ñu fal ko pour askan wi fal ko président Diomaye Faye tey bu ñu demoon Assemblée nationale a ñëwaat Assemblée nationale Diomaye Faye du si am ay député yoo xam ay nitam lan yoo fii ak 4 ans dafa war a jar bàyyi xel parce que moom li muy daw ci assemblée nationale bii jomaay nga xamante ni assemblée bi ñu yor ni tey jii jomaay leen gën a déggool ci Sonko parce que lu jomaay bëgg assemblée war na ko mën a am mais bu ko Sonko bëggee du am benn war naa mën a négocier ak ñii pour jàll ay loi am ñaari bi lan moo tax ñu toog juróomi weer fii may wax a yow amul benn proposition loi bu jógee maanaam ci état bi ñëw assemblée nationale te am ay réforme ñaar ñetteel bi mooy bu ñu tasee ensemble nag Ousmane Sonko mooy tànn ay député te mooy jiite liste bi bu dee des primité après moom mu des fa mais ñi xamante ñoo nekk assemblée ci tutelu Ousmane Sonko la ñuy nekk pas tutelu parce que bii yoon Ousmane moo porte moo tax kee sit militant des partis mais président assuré la boo xamante ni dañ ko teg fële à côté daanaka xamul lu bari lu du tukki toog pale jàpp boppam Ah. mais décision yëpp Ousmane Sonko moo koy jëlee décision jóge na si maanaam décision yi nga xam ne maanaam mooy kuréel yi mooy secrétaire général bi jóge na si mais militant la ba tey may wax yow am na carte passé xottuwul carte am te Ousmane Sonko moo ko yilu si parti bi ci ndigul Ousmane Sonko tamit bokk na si muy gën a wéyee ndax Diomaye Faye mënut a recevoir ko Ousmane Sonko d'accord fi may wax ak yow loolu c'est grave mais Alioune li wax dëgg la dafa am ñoo xam ne mun ko wax rek mais ñoom ñëpp xam naa leen gis nga benn homme politique ci dëkk bi ku Diomaye recevoir ko ba mu toogee ba tey depuis man ma xam Abdou Diouf mu nekk directeur cabinet ba Macky Sall mujj bi nii mas ngaa gis benn directeur cabinet président de la République président de recevoir ay gan yu am importance ay doo teew Mary Teuw Niane mas nga gis mu teew ci audience président de la république te mooy directeur cabinet lan moo ko waral ñaar ñoon fa teg kan moo leen fa teg bu Diomaye Faye di recevoir ay gan yoo xamante ni dafay waxtaan ak moom dossier d' état directeur dafa war a toog mais directeur cabinet du fekkee audience président sëñ bi xanaa ngaa yëg <laughs> mi ngi noonu Assane Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké kàddoom yi daal la yëkkati xam naa dama lay bàyyi rek nga ñëw sa jàngat ci li mu wax ni bu ñu demee ba tas assemblée euh, Ousmane moo ci gagné. ndax député yi du gàtt ay députéem la ñuy doon waaw sant yàlla si kàddu sëriñ bi ndax loolu mu wax lépp dëgg la bu ñu tasee ensemble bi ñu defaat beneen kii bu boobaa ñooñu Sonko lay doon loolu mu wax moom dëgg la te yaakaar naa ne ñëpp nangul nañ ko ko beneen bi it kii mooy Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly kan kii di wax nii. loolu moom lañ teg kay moom mooy Cheikh Abdou baar Bara Dolly nag. gis-gisam ah. ak taxawaayam si wàllum politique kii la mais yee jàll ne doonutoon Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly. yee doon daa jàll kan la woon. yee jàll ne day xam naa rek waaye daal kii daal moom mën daal nii laa bëgg kii mooy Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly taxawaay bii mu amee daal mooy taxawaayam mais xaj na nag yee taxawaay bee mu amee woon xaj na ñee dañ doon doog a falu wala ñee dañ doon nangam wala ñee dañ doon nangam wala wala wala wala. wala wala yu baree sa mën a am mais daal lii nga xamante ni si Abdou Mbacke gëm na te nar nekk nar taxaw taxawaay bu dëgër mooy ñii daal lii ñuy bëgg a tas ensemble du ko nangu ndax moom bërki dem bu. bërki dem moo nañ ko tas. waaw bërki dem dañoo nañ tas ensemble bi ensemble yoo xam ne ay seekoo si ne ay nangam nangam maanaam ni duñ ensemble bi tous mais ginnaaw bi si la toog xam ne daal ñii daal sa li may kii nii kiiw mu taxaw nii. li may kii nii kiiwul mooy lan. <laughs> Assane li may kii nii kiiwul mooy lan. kii daal mooy Cheikh Abdou Bakar Bara Dolly kii wax nii. waaw barki démb wax nga ñu nee na nañ ko tas. waaw mu ni tasuñu ko. waaw waa léegi maanaam lu xew ci lu dox ci diggante. xam nga da doon jàppale. ñoom ñuy kii. non Assane yooyu non dafa taxawoon pour jàppale leen. te ñoom xaj na xamuñu jàppale ci lan. leen jàppale naan buñ nekk gaa yi dañu bëgg a tas assemblée muy nañ ko tas bu gaa yi ne nañ wote nang muy nañ leen ko woteel bu bu Ousmane ko moom moo war na taxaw daan ni man bi mu demee màggale man damaa bokk ak yéen Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly mii euh, sama mbokk yaay la naan moo war a xëcc mbokk gi. Mhm. am na lu bëri yoo xamante ni gouvernement am ñoo ko war a incarné pour dabu ji Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly pour war koo xëcc andi ko seen bopp. moom demoon na sax ba président jël numéro voilà léegi nag comme que Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly moom dayoom si wàllum politique ak fa mu toll si wàllum politique bawal gépp nekk si ay ginnaawam kooku dañoo war a daw topp si ginnaawam waaye wërta daw di topp si ginnaaw kenn. ba mu dawee nag maam bi ñu jàppee ne da doon topp si ginnaaw gars yi di kii gars yi di jéem a bañ mu baleen taxaw boppam ba gars yi soxla ko léegi bu ko gars yi soxlaa nañ ko contacté ah, daa toppoon ci ginnaaw gars yi gars yi bañ waaw gars bañ di leen doon jàppale te gars xamuñu li leen doon jàppale comme que xamuñu ko nag mu baleen gars yi nag ku leen doon jàppale Assane avant élection yi nga leen di jàppale moom avant élection yi nee doon jàppale wu leen parce que xaw ma leen Ousmane Sonko moo na nga continuer bu fi ñëw boo ñëwee doo dugg ñun duñ soxlawuñ kenn ñi àndaloon lañuy ñuy àndal yow ku ñëwaat na nga dem bokki sa parti ba waa parti ba xool la te Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly yëfi boppam la yor parti boppam. waaw maanaam yor mbooloo bu bari bawal nekk ci ginnaaw. bawal nekk ci ginnaaw kooku kon du topp ci ginnaaw kenn na ko Sonko jéem a dabu ji. dabu ji mooy. nañ waxtaan jéem koo dabu waxtaanam ndax am na doole si ensemble bi de. Cheikh Abdou Bara Dolly ensemble bi kenn attunu ko fa kon nañ ko jéem a jël xool ko bu ko defee élection yi di ñëw ñu boole ko ci liste nationale bi. boole ko seen biir ndax amal na leen njariñ joxe hélas. am na doole bawal. Hmm. waaw te fan yi doon na may ay moto pomp maye na moto pompe maye na ceeb maye na nag production yi moo leen jox nag yi màggal loolu lépp maye na ko waaw jox na leen ay nag yi màggal si production yi maye na ceeb maye na petit kii ay moto pompe jàpp def na bët si def na lu ne ngir lan ngir gouvernement bi am ndam comme gouvernement bi mënuñoo ah, xool loolu ah, état bi la ko doon defal. ak sëñ Tuubaa. <laughs> jërëjëf Mesre Alaaji. waaw. Euh, barki démb du yàggul dara dégg nañ ko ci ensemble mhm. mu wax ba gaa yu bëri tàcc ko tey nag ñëwaat na dafa ne wax lu contraire loolu am ñu naan mhm. comme ni ko Assane waxee daa dàq gaa yi gaa yi gëstuwuñ ko mhm. léegi nag mu taxaw fas yéene def fas ak ñoom ndax yow noonu yi nga ko jàngate ak kàddoom bi na ko déggee waaw sëñ Abdou Mbacke Baara loolu li de <coughs> euh, moo tax dafa am nit moom bu fekkente ne Eh, da nga koy téye xarit mën nga ne sama xarit la waaye it dafa am xarit yoo xam ne moom du luñ jàpp nga jàpp ca ndax buñ koy bàyyi doo ko yëg. jàpp nga jàpp. ndax buñ koy bàyyi. Hmm. doo ko yëg parce que la mu waxoon démb. Hmm. tey jii bi mu ñëwee ba mu koy bàyyi. Hmm. ña ca jàppoon ak moom yëpp yëguñu ni bàyyi na loolu ba ba nga ca leneen. moom sax xam naa ne léeg-léeg day réer ci moom mooy kan parce que moom problème am bi gën a bi gën a nekk problème am mooy dafa moytuwut micro yi kan moom sëñ Abdou Mbacke Baara lu tax muy moytu micro yi tey liggéey ci micro yi waaw te nag day ñàkk moytu micro mi moo koy indil tey mu wax lii suba mu ñëw wax lee parce que bërki démb dafa taxaw ne nañ tas assemblée nationale. Hmm. assemblée bi amul njariñ baaxut. Hmm. tey président ne dafa bëgg ñu tas assemblée nationale mu ne tas assemblée nationale bi baaxut parce que Sonko dafa bëgg a tas assemblée nationale bi. Hmm. pour te moom lay jariñ du jariñ jomaay. ndax xam nga bëgg a wax sax ne kii day jariñ jomaay du jariñ Sonko loolu sax waxu yëpp nit ñi la quoi. ay jomaay lay jariñ du Sonko lay jariñ du jariñ jomaay jomaay lay jariñ xam nga wax yooyu ci boppam rek la exister la exister wut ci doxalin yeeg exister wut ci lenn parce que lii projet la boo xamante ni bii moom la ñu war a doxal du dëkk waaw taxaw nañ projet bi ba fal président de la république. Mhm. président bi amut ci assemblée ba. ñoo xamante ni bii ay nitam lañ gis nga taxawaay bi am ni mm. député yi boobu ba nga ni lu intérese réew mi seen yoon ñu def nu leen neex mm. du dëgg donc président dafa soxla majorité léegi nag moom lii muy def ni day préparer pour jéem a indi lu mu war a def discours am ci loolu wax naa la ne la euh, keroog ne la dafa wéeru ci Pastef pour Amadou Ba dugal ko ci list liste mi parce que moom moom xam na ni mënta dem moom kii parce que Touba wax dëgg fa yàlla euh, gis na ba ba gars yi defagut dara tuubaa nga xam ni yoraguñ nguur. gis nga fa Touba teg ñi waxuma laak nag projet yu yi nga xamante ni bi ñu ngi koy watal wutali ko Touba. ku bëgg tuubaa bu doon moom Touba ko ñor la mu doon wax naan. Touba ko ñor Touba ndox mii di war a ñëw. mu bëgg a di ngat ñi kon moo lay wan ne la. Euh, non ma alaaj dëgg alaaj dëgg ko ñor non lan mooy dëgg ci li mu wax ni moom moo wax démb na nañ tas assemblée ah. waaw ñëwaat na bu buñ ko tas ban moo ciy dëgg léegi ñaar yëpp moom la de est-ce ci diggante bi da cee gis lu ci lu kii mais ñaari wax yëpp moom moo ko wax moom leen dong la mooy tontu boobu ñu ko tontu gars yi tafal ko Sonko dane man lañ tontu waaw hmm. te xam na ni bu demee Touba carang ba lay dem xam naa dana sori lool caran ba. mooy li Sonko ne bañuñu ko ñëw waaye ku ñëw demal ca parti ba jënd carte demal ca parti ba jënd Sonko xam na ni mooy mooy yëlëb ko rek pour mu wadd demal ca parti ba jëndi carte xam na ni bu demee ñu jaay ko carte ñoom Diouf làmbaay hmm. nekk ci kanam naan ko yaa nga ca ba nangam. <laughs> si Abdou Bara Dolly dana sori ca raaba de. raawut tuuba ban sori si Abdou Bara ne ci kanam. raaba la dara sori day jaay carte bi moom am na carte carte yi mu yor baaxul carte carte Amadou Ba la yor. ba pare si Abdou Bara dafa dafa am. dana am nay carte dégg nga am nay carte. non non si Abdou Bara li gën carte la am muy am base. ban base ana base. bawal ban base. bawal mu ngi ci ay mbagam. ngaabu bawal mu ngi ci mbagam. ak ngaabu bawal kay ak ngaabu dala. fii daal <laughs> fii dala. xaritu bugaan la. <laughs> asan fii dala bugaa da koy wax dëkk yooyu dalaak ngay ngay <laughs> Madina Touré Kawsara ak Touba Fall yëpp moo ko moom ak Gébu Fall yooyu yëpp yow moo ko moom ñu ngi si ay mbagg alaaji nag lii ku ko am moo gën ay carte loolu yëpp terewut ay zéro la doon am loolu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni bii moo ko moom waaye terewut ay zéro la doon nit ñi mënu ñoo wote li am solo mm. moom lii muy wax nii mm-hmm. euh, na xam ni wax yi muy wax mënul dugg sax ci bopp sénégalais yi parce que moom duggagut ci boppam wax jii muy wax nii maanaam boobu wax ji muy dugg parce que bërki démb boo Ndiaye mu a wax de Ousmane nii la mel day tàgg sant jamonoy temps booy bi ma koy <laughs> ni bi mu nekkee xale ni doon ko yar te Ousmane Sonko mag la. Ousmane bu ñëwee daa war na wax loolu da war na wax wax loolu ba mu leer. <laughs> Eh, loolu war na wax ni yàgg nañ. loolu Ousmane bu ñu daan ànd yow wax fii lii bërki démb bi ñu dem màggal xam naa gisoo Ousmane rek xam naa délégation bu wër ko ju mënut a dugg. léegi mu daal de. non non Sadio non Sadio amul problème dugg moom. amul problème mais Ousmane moo waroon a dem këram Ousmane da ko waroon a boole si ñu seeti. est-ce que nuyoo na ak Ousmane. Ousmane da ko nuyoowuñ nuyoowuñ mais Ousmane da ko waroon a seeti. xam naa borom lu tax mu koy seeti. ah mu koy mbokkam la di. kilifa diine autorité la foofu Touba. autorité la kilifa diine la mbokkam la. ñett yooyu Baara nguur gi buy ñëw Touba foofu. yow nag yow nag yow nag Assane yow booy joose yow. Ousmane Sonko bés bu seeti woon Cheikh Abdou Bara Dolly bu yemoo nga xamante ni bi kon nag Euh, Pastef Touba moom am na problème. <laughs> ah, ah loolu loolu kenn xal Ousmane Sonko da koo ñeme. xalaatu ko sax lu tax mu koy seet. lan moo tax mu koy seeti fan la ko teg. mais la jàppale autorité la. ah non non du ko seeti ak ni mu leen jàppale. du ko seeti déedéet du ko seeti. ba ba léegi communication baax na leen amal. non du ko seeti quand même du du du waxuma seet sax waaye jox ko sa sax wóorut mën naa moom xam na xam nga président demee kii na buruxlu na ba dugg ba nuyoo. Mhm. waaw mais defe naa bii bi ñoom seex Baara wëree ay ñoom Diouf Lambaay wër kii protocole bi <laughs> déglu de. <laughs> ñoom ñoom sëñ Assane Mbacke élément bi ñoom sëñ Assane Mbacke. mën Coro. foofu xam nga Cheikh Coro jiite. waaw eh, ñoom sëñ Assane ñoom Diouf Lambaay ñoom Cheikh Baara ak ñoom ñëpp wër. ñoom Diop tey defar na bu fa ñëwoon ñoom Diop ñoom tey Diop tey dóor ko épaule autorité la <laughs> du dugg hmm. ah déedéet du dugg boobu autorité boobu boobu kii bi la ko ah waaw mais Touba bu ñu nee député waaw ñaar la xel yi dem ñaar muy sëñ Cheikh Thioro ak Cheikh Abdou Bara Dolly ah, waaw ñaari député Cheikh Abdou moom bu ñu nee député Pastef léegi hmm. oh, waaw Cheikh Cheikh Thioro jeex na léegi waaw mais dama ne non non moom député la non mais eh? askan wi non non sëñ Abdou Bara Dolly non non député askan maître nag non non sëñ Abdou Bara Dolly ci buruxlu boobu la buruxlu ba nekk député ci waa kii ñoo ko fal waaw mooy ci liste eh, kii élection yi waa PDS <laughs> la dafa buruxlu parce que dafa jaar fa ñu ne ko du fii mu buruxlu PDS waaw ma gis nga bu gaa yi gis nga gaa dëgëral teengal kii mais doon na dugg de parce que dafa aay ci buruxlu. d' accord buruxleur la. aywa expert la en matière de buruxlu technicien la de. accord.